dañoo woote ngir feete di ans de année d'activité de mouvement Madakaw nit nag soo ko woowee dangay teg ci loxoom Madakaw ay ndaw dañu ko composé mu nekk ci département de Mbacké en 2013 ndaw ñi ko créé woon amoon initiative bi ba tey ñoo ngi dund mën naa ci tudd kenn rek mu mat ci seede. mon frère Cheikh Abdou Lahad Faye président ADE bin amee mbébét pour bokk ci ndaw ñi war a taxaw développement département de Mbacké yàlla def ñu toog waxtaane ko ci juróomi nit Aline Badara kan doom ci bayti Kane bu Mbacké maître taekwondo club Sénégal Mbacké Bawol Cheikh Abdou Baxé Diop directeur technique régional taekwondo région de Diourbel Serigne Awa Mbacke moom Serigne Koso moom Serigne Abdourahmane ibnu borom Daaru Muxti Cheikh Abdoulahad Faye ADE Fallou ma Madakaw mii taxaw ñoo taxawal lii di Madakaw en 2013 initiative bi ñu amoon mooy 16 communes yi nga xam ne ñoo composé département bi fenn fu nekk ñu am fa représentant bi ñu koy taxawal ñu dem ci kilifa gu mag ñu di ko wax Serigne Abo Darma moom Serigne Cheikh Gaynde Fatma yàlla yàlla yokk ay leeram taas ñu ci barkeem korog bi ma ne ko damaa am yéene politique bëgg koo jaarale ci sama moomeelu bopp te bëgguma ko jaare ci benn parti politique dana ma noo ko xalaata tuddee Serigne Awa Mbacke mi ak Cheikh Abdoulaye Faye ñu ngi toog ma wax ko tur yi moom Serigne Abo mu ne ma naa bàyyi ba gannaaw suba ma ñëwaat ba ma dikkee Serigne Abo moo ne ma tudde ko mouvement ànd jàppale askan wi di Madakaw mu ne ma bis dana ma sa ñëw nga dégg ko fu sa bët tegewut dégg ko fu sa tànk tegewut waxe sëñ Abo dara ma ja tey agsi na na ma ko ñëpp ñaanalal moom sëriñ Abo li olof di wax naan feccum liir bu neexee nday jaatee ca mbagg lu loolu dit gis ci Madakaw ak réalisation ñun waa Madakaw sant nañ ko Serigne Abo doomi Serigne Cheikh Gaïndé Fatma Dia ñu ngi sant bu baax nag département bi di sant autorité yi waaye kin ci jiital nag ci cant nga xam ne réalisation yi ñu gis quatre vingt pour cent ci réalisation yi mooma na ma ko ñëpp tàccul di monsieur le maire Abdou Lahad Ka maire Touba monsieur le sa dooma la sant tey ci kanamu ñëpp Madakaw huit fois la organisé don de sang six fois yëpp monsieur le moo ko financé benn dërëm ma kaw dugg ci bis bii ngeen ñëw tey quatre vingt pour cent ci li ko réalisé monsieur le maire toog la Serigne Abdou Lahad sa jàmbaar ja moo ne woon du sant ku ma deful dara nit doo su ko lekk doo su ko naan njariñ lañ koy dee tekke kenn ku amul njariñ yàlla mi ko sàkk bëgg yonent bi bëgg ko Serigne Touba bëgg ba mu yàgg ma ne man Abdou Lahad Mbacké sax bëggu ma ko monsieur le maire bu ñu amoon lu raw cant gi ñu lay cant tey dañ la koy cant ci kanamu nit ñi nga xam ne ñun ay asgor pire lañ ku ñu jam ñu nag li tax nag cant gi ñëpp ko moom waaye dañ koo jaarale ci moom ndax lan daa jëf nag ci Madakaw lu kenn jëful loola moom day dëgg ju wér da ko cee jëf ñuy feete fukki at du benn ñu ne danañ ko sant ci kanamu ñëpp ndax bis bii ku ñëw gis li fi Madakaw def ku ko gis da nga ne ñii fan lañ jële lii en 2016 la ñu rejoindre coalition Benno Bokk Yaakaar di jàppale son excellence président Macky Sall fii ci cinéma du monde discours ba ma teniroon tey laa ko dàq tenir man Gallas Diop en 2016 dama ne woon dinaa jàppale président Macky Sall ngir intérêt département de Mbacké fekk mi ngi dugal loxoom ci département bi ci ay infrastructure ci ay nomination mouvement Madakaw continuer topp ci gannaam di ko jàppale tey lañ ko gën a dëggal nag ndax kat ma Cheikh Mahmadal Fadal dafa jaayante woon correct bi Senghor di laaj réew mi fii ci Touba ndax dana woon ñii soxla réew mi ñi ko soxla la wax de ku njëkk a ñëw fii fekk ma fi nangu maa jàppale ci dëkk bi ma jàppale ko man sëñ Fall Lamine Gueye ñëw fii ci dëkk bi sëñ bi ganale ko ba ngoon mu di ko yeewi mu wax ba yeggal tudd dëkk bi sëñ bi jox ko àddee ñaanal ko mu dem mu ne du moom de ñëpp jaaxle ndax Senghor ndax nu mu mënee ñëw sëñ bi dalal ko yeewi ko wàcc ko mu dem te mu des Senghor ca àjjuma ja Senghor dellu si sëñ Fallou gane la ko ba waxtu woo dellu si mu ne la sëñ Modou bu sañee wool ma ko mu ñëw ma dikk may yewe koroog boo mu dikkee mu yëkkati fanweeri junni jox ko moom Senghor boole kook ñoom àndal sant ko gërëm ko Senghor na ko Mbàkke teraanga doo su ko delloo waaye ñëw gi ma ñëw ci sa dëkk bii damaa am lu ma indi réew mii ñuy xëccoo di senegal dama koo soxla te yaakaar yaakaaroo ma ko ci kenn ku du sa jëmu ji Mbàkke su ma ko jotee dinaa la jàppale ci sa dëkk bi sëñ Fallou ne moo ngi bu ko kenn piis assumer ay responsabilités ci Senghor jàppale ko mu jot ci senegal 1988 Serigne Abdou Lahad Mbacké sunu jàmbaar ja dana woon koor Abdou Diouf war Serigne Touba ci lan la ko tegoon dëkkam bii ak taxaw gu ko taxaw ci biir réew mi dama ne Serigne Abdou Lahad dana woon ku liggéeyal Serigne Touba mu yàlla war a fay Ablaye Wade nañ ko sant bu baax te gërëm ko fukki at ak ñaar la fi liggéey def fi lu nekk jóge fi jox président de la république Macky Sall projet bi mu am bi njëkk ci projet am autoroute Ila Touba la 416 milliards mu jox ko Serigne Bamba. léegi-léegi nga dégg ko naan bu ko neexoon yóbbu ko Ziguinchor ak fee daa yurut oto da daan dem Dakar ak ñëw mais ñu xam ne Dakar la ñu dëkk. daan xëy fajar 6 heures du matin di jullee ci yoon wi di añee ci yoon wi nga xam ne bu ñu demee duñ mën a lijjanti suñu mbir bi autoroute bi paree ñu mën a ndekkee suñu kër dem Dakar dox si nit te añ seet ci biir dëkk bii xam nañ ni président Diop. président Macky Sall yemu ca de dafa ñëw fekk assainissement dëkk bi am problème daanu dajut suuf man bokk naa ci ñi njëkk a wax assainissement Touba ku tàppee ma Dakar gis ko diggante kër Serigne Abdou Lahad Mbacké ak diggante kër Soxna May préfecture bu ndaam bii tey ak fu bari ci Touba ba ci ñaari étage man Fallou jóg bokk naa ci ñi njëkk a wax assainissement Touba président Macky Sall ñëw def fi ay réalisation yu am solo yokk bassin rotation bu Touba yóbbu ko Darou Rahmane dégg ngeen ko ci màggal gi li ma wax Serigne Mountakha Mbacké Al Bachir danaa la defal bassin rotation boo xam ne Kër Kàbbu benn lay doon ci senegal ngir mbëndum Touba. ku jógee tey fii ci poste contrôle bi jëm tali bu bees continuer nga gis président Macky Sall li ma réalisé toll ci vingt cinq milliards ma ne képp kuy muur te yaakaar Serigne Touba ku la mën a jaxase ak Macky Sall rek xamal na sa ngëm des na. dama ne ñaari hôpital ma mas am ñun waa Touba yu baax yu ni mën a wax di ko tudd man la bal foo seeni hôpital Ndamaat. suñu dërëm da caa nekk ca biir en cent pour cent président Macky Sall ñëw gis jalis li muy rey ci région de Diourbel li muy rey ci département de Mbacké mu ne du ma seetaan dëkk Serigne tubaab bii ay nit man sama xarit Cheikh Abdou Mboub doomu Baye mbenn Mboub ñu bari xamee ko ci sama oto la faatoo ndax jalis te booba sonn na lool kon ku xamul jalis dalaa dal mu ñëw jël taax mu toll ci huit milliards yu teg def ko hôpital Matlaboul Fawzeyni na Serigne Bamba laa koy defal mu dolli ca. ne Touba dañ koo war a yokk ci santé jàppale leen parce que faj mi daf fee xaw a suuxee ñu dagal ko suuf jox ko mu def fi hôpital cinq milliards ñu ne déet mu tudd ko Serigne Bamba. lii ñuy wax DER di financement yéen sama jigéen yéen a ngi nii toog ak jigéen ñi département de Mbacké xam nga financement DER nag dadul wax ndax kum neex nga dem ñu financé la 10 million nga def ci sa poche xëy na Macky ma dara boo bokkut ak nag. am galas Diop mu la may un wane ko ba ñëpp di ko dégg waaye réew na ci département bi moom ku lekkul xaalisu DER ci departement da Mbacké bii ñu ne néew na jigéen ñu fi dox ñu lekkul xaalisu Macky Sall muy promise muy DER dama ne la Serigne Abdoulaye waxoon ne ku liggéeyal Serigne Touba Mour Jalle Faye laay waxal président Macky Sall man Fallou Diop mii taxaw fii di wax dama koy wax ci kanam autorité yi ñëpp toog Macky Sall xamul galas jóob juróom at la ak moom Macky Sall man xawuma man galas Diop juróom-ñaari at laa ànd ak moom li ma réalisé lépp ci biir juróom-ñaari at yi laa ko def léegi-léegi nga dégg nit na dañ koo jënd man képp ku ma xam ci juddu xam ma ci biir dëkk bi xam ne du ku may du ma ko ji jënd président Macky Sall mës sa tegoo man ci sama loxo un million franc fii laa ko waxee mu leer ci kanamu ñëpp man Galas Diop mësuma koo gis président Macky Sall mësuma recevoir mës sa ñëw Touba gii sax di def visite privée mu jaral ma ma dagg sama yitte fu ma fekk ma jëm dama cay nekk musuma koo jaral kenn musuma gis président Macky Sall ñëw Touba nga gis fa Galas Diop musaam ñun li ñu ñor mooy département de Mbacké ñun waa mouvement Madakaw li ñu ñor mooy senegal bu ñu sañoon deuxième ville économique population la ñu nekk ñaareelu dëkk bi yëpp ay doomi aadama ci senegal ñun mouridisme ñoo yor économique senegal bu ñu téewal suñu loxo ci économique économique bu daanu suñu événement 72 heures de gii rek ci relance économique bi mu def ci Sénégal war na mën a tax nag ñu takku ñu ñëpp nag jàppale ko fi nekk ngir mu jàppale ñu dama ne bu leen ko laajut mu yóbbu ko faneen suñu alal la ñoo ko moom nañ ko laaj Cheikh Abdoulaye Tall woon ñeent yi ku ko bëgg état la koy jox aw yoonu oto yi jaar courant moom àgg ci baatin nga xëy rek gis sa kër leer nañ di tàkk muy ab courant de sécurité di am ndox dama ne dañ koo bëgg président Macky Sall def na fi benn nomination ci département bi na ko dolli doyul na ñu ngi koy ñaan ñun waa mouvement Madakaw président Macky Sall def na fi ay réalisation baax na lool en fait quatre-vingt-dix pour cent mais na ko dolli parce que ñun loolu la ñu bëgg ndax ndaw ñaa ngi nii am jom ba dee de amuñ ay industrie amuñu géej amuñu port li fi nekk ñoo ko def avec suñu propre moyen investissement ñun waa département bi kon nañu président Macky Sall jàppale lii mooy message bi ne woon danañu ko lancé bu ñu dikkee tey di sant autorité yi nga xam ne ñëw nañ ànd ak ñun bés bii di ci jiital nag président conseil départemental Serigne Fallou Mbacké di sama lépp ko rek bi ma ko jàppalee ba mu gagné bu ko neexoon duma teg ci wetam daf maa jël def ma troisième vice président conseil départemental Mbacké ne ma Fallou yow rek yaamaloo ci sama wet ñu ànd ko ànd bu rafet te yàlla nañu ko ànde ba ko rek borom di ca dib dogalam te dara bañ cee ñaaw waaye mention spéciale sama yaay madame Mbaye di sama yaay bopp koor gi damaa woo ba ma ñëw këram mu teraanga ju bari jox ma ko dama xàmmewu ma la ak sama doom caacoo galas dangaa baax dangaa gore dangaa nangoo liggéey ma laa dégg nga yëkkati sa baat ci lu ñaaw di ko teg ci doomu aadama moom madame Mbaye mii ñu ngi koy sant di la jox ab sant nag nga tegal ñu ko ci loxo madame la ministre 36 groupement des femmes nag sama yaay laa dajale fii tey ñoom jigéen ñi Madakaw yi ñu ngi nii waxal lii nag ab yóbbante la mu ñor ma sëkk nag ma bëgg nga bàyyi ko xel bu baax yóbbul ma ko ci madame la ministre teg ko ci loxoom koroog ci koor gi bi mu fi ñëwee def danaa ñëw def ay social am dafa bàyyi Madakaw jigéen ñëpp frustré wu na ma liikat kat dañuy def déclaration ma ne leen déedéet mosu leen maa gis man mii góor de personne morale bu Madakaw ma di ko def bu leen ko def toog leen déglu ma ba mu wootee la 7 mars mu mu nekkoon la 8 tombeeg màggalu Daaru Musi dañ fee dugal ay mbubb jox jigéen ñëpp ba mu des jigéen ñi toog benn mbubbu dugul ci Madakaw jigéen ñi filistré wu bëgg def déclaration mën na leen def toog leen bu leen demee nee leen madame le ministre sant naa ko gërëm naa ko ndax kat lebal na ma teraanga man ndax jël naa sama bis boole ci ñu ma ko tudde mu yebal madame Mbaye mu doy ma sëkk ak barke ndax xàmmewu ma ko jëmmam waaye nag su ma sañoon mu jàppale jigéen ñi moom te bëgg naa lu fi dikkati nag ñu jot seen wàll ndax ñun nag amuñu lu jigéen ñi Madakaw yi de te ñii président Macky Sall lañ àndal président Macky Sall lañ jàppale nañ leen jàppale maa ngi sant bu baax premier ministre bu senegal ci taxawaay bu am solo bi mu am ci Madakaw yabal suñu frère nag suñu doom bàyyi suñu xarit suñu lépp xaadim ja mu def délégation bu am solo ñëw xaadim ñu ngi jël ak cant ak lépp di ko teg ci loxo ci sa loxo nga tegal ko ci loxo premier ministre waaye Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaynde Fatma Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaynde Fatma sant nañ ko de gërëm nañu ko ñun waa mouvement Madakaw ci taxawaayam damay woo xaaj guddi ma ñëw muy waxtaan ak man ci dëkk bi di waxtaan ak man ci Madakaw tey jii bi ma ko jotee dana ma damaa voyagé woon ñëw sonn mais fàllu kenn du ma jiitu ca bis ba te mi ngi nii toog te dana ma dama koy toogee ba mu jeex Mbàkke sant nañ la bu baax mënuñu laa fay ñoo ngi sant sëriñ Modou Mbàkke Bara Doli sama sëriñ sama xarit di sant bu baax mu le ministre Gallo Ba sama final bi barki démb damaa toog ba mu yàgg rek mu def surprise ñëw ne ma fàllu loo woote ci Mbàkke suma ko yëgee dinaa ca teg sama tànk sant nañ ko bu baax a baax a baax tonton Mor boo demee santal ñu bu baax ministre Gallo ñu ngi sant bu baax ministre des finances ñu ngi koy sant bu baax Mamadou Moustapha Ba Mamadou Moustapha Ba Mamadou Moustapha Ba ñu koy sant ñun waa mouvement Madakaw dañoo lebal teranga de Mamadou Moustapha Ba ndax daa dégg Madakaw boole na ko ci jëmmam Abdoulahat Ka sama waajur wii ànd ak Moussa Thioune yóbbu ma ci moom mu ne ma gis naa la maa ngi lay siiful dinaa la jàppale te bu bis bi jàllee dinaa toog ak yow ñu waxtaan ndax ñun président Macky Sall ñu bëgg te gis nañ li ngay def ñu koy sant bu baax di ko teg ci loxol monsieur le maire ak Moussa mu tegal ñu ko ak Serigne Modou Bara Dolly taxaw na ca taxawaay bu am solo moom ndax yàgg naa bëgg mu recevoir ñu ko ñu koy sant di sant sama frère sama lépp ma fari Ndiaye waaye ñi ngi sant bu baax ministre de l'agriculture muy sama ministre ñu koy sant ci délégation bii mu def tey yabal Mara mi mu dikk ànd ak délégation bu am solo sama jigéen sama xarit nekk ci di soxna Loota Mara nel ministre ne ko ñu ngi koy sant bu baax ñoo ngi jéggulu ci cant gi mais mënta ñàkk ndax Madakaw dafa woote ñu fekk si ko kon nag nañ ñu dimbali rek may ñu yeggale ci suñu kàddu ci cant gi ñuy cant ñu ngi sant monsieur le ministre bu baax santal ñu ko di wax na képp ku ñu tuddul na am xam na suñu yéene moo nekkoon ci tudd ñëpp ministre ne ko ñu ngi koy sant bu baax Mara ñu ngi sant ndaw yi mouvement Madakaw rawatina responsable des jeunes mouvement Alsane Saw dëkk commune bu Dala Ngaabu moo waroon a njëkk a jël kàddu moom Alsane Saw commune bu Dala la dëkk mooy responsable des jeunes mouvement Madakaw ñi ngi leen di sant ci organisation bi di ko jaarale ci loxol Alsane di sant jigéen ñi Madakaw rawatina nag vice présidente soxna Lamba Mbodj jaarale ko ci sa loxo ak Fatou Kiné Gaye ñu ngi leen di sant bu baax di wax na lii moo nekkoon yi mouvement Madakaw waaye nag Madakaw dafa nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar di jàppale son excellence président Macky Sall ndax biñ nee waaw ci élection législative yii bañ nee waaw 2016 bañ nee waaw 2017 élection locale lañ fi génn ñun waa mouvement Madakaw te bu ñu ci boole woon parce que Madakaw nag mouvement la boo xam ne day jël position ci électorat bu mu mën a doon ci Sénégal ngir intérêt réew mi tey jii nag mouvement Madakaw jël na position ngir jàppale son excellence président Macky Sall en 2024 personne morale bu mouvement Madakaw Fallou Diop moo ko wax wax ko ci turu mouvement Madakaw gépp Madakaw jël na position ñun waa mouvement Madakaw jàppale son excellence président la république Macky Sall ndax am réew nag duñ ko jël jox ko nit mu def réalisation bi am solo yii liggéey ba toll fii ñu di ko jël di ko teg yeneen loxo di ñu ko def ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah